lay bëree bëri lay bëree bëri te lay bëree bëri ndaanaan laa ñaari yoon legal. Eu não gosto de zero. 来 Certo, dëgg yàlla parce que dund nañ ko xam na dama koy ñaanal yàlla ko suñu borom dafa jàmm ñaari xale lañ daal mais gis naa la dëgg di ko teg lu métti ci géej gi est loolu dina xaj ci saxob tey waaw mais noonu la laa dëgg c'est normal parce que problème am la xam na problème am la c'est normal Papa Boy Djiné daal du ma sama doom la sama lépp la comprendre na dama koy ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm rek moom guddi yi laa la mbëri nekk Sénégal yi Balla Gaye yàlla suñu borom lafal cat lu gars yi di wax ak li ñuy wax moom bu mu ko déglu moom moo demoon uti ji moo demoon entraîné ji lu mu liggéey xam na ko bu mu déglu sénégalais sax wax dëgg yàlla bu ñu ay sportif lañ xam nañ ku am doole ak ku amul doole man lu ma koy xale rek bu ko kenn sonal lu mu war a nekk nekk na si dañ koy ñaan yàlla na ko suñu borom defal ndam suba. kon suba am nga yàqin ne day a baax sama la a dal si doole si lépp dëgg yàlla dama koy ñaan yàlla na ko suñu borom defal ndam. Ah, suba ama mën naa wàcc gunge Balla Gaye. waaye bu baax a baax luy loolu sama mag la sama lépp la. waaw ana Bombardier. waaw waaw mais après suñu ñaari combat soo ko balle Balla Gaye jaar bu jeexee rek après ñu waxtaan. nga doog a waaw jeex na. ama kontaan si jërëjëf. bi suba la waaw ko bu neex la combat bu neex la euh, man li ma waxoon rek waxaat bu far di am ñun Balla Gaye la ñuy faral mais suñu sañoon mu respecté adversaire bi def ndànk parce que Gris Bordeaux pare na combat bi ànd ak ay mbokkam pare ni mu war a paree kon pour Balla Gaye am ci moom dara il faut mu respecté ko il faut mu respecté ko waaw. combat tey teewaay la. waaw kii sama jarbaat la sama doom la sama rakk la Sago Baldé dañ koy ñaanal yàlla may ko ndam ndax juróomi maamam ay mbër lañ Barabara mbër la Fallaye mbër la euh, Paate Baldé mbër la Ama Baldé mbër la Souleymane Baldé mbër la Alaaji Mbay bi mbër la kon moom li ko wër ay mbër lañ yàlla ko yàlla may ndam. Pikine Pikine Guédiawaye lan la. waaw dañuy def li doon def rek bu ñëwee dam yee rek dam yee dañuy dam rek. mais nga ni Balla mu respecté waaw ma yoroo wax loolu laa koy wax mu ne Gris Bordeaux champion la mu jox ko cër loolu laa am ci looy mi ngi lay si. ça va sa fan. waaw jërëjëf jërëjëf merci beaucoup ñëw seetaan si lamb. waaw waaw damaa ñëw seetaan si làmb ji waaw. amateur laa rek amateur laa rek dama ñëw seetaan si rek. man nag combat combat Balla Gaye de Gris Bordeaux moom laa lay. waaw ñu ngi leen ñaanal ñoom ñaar ñëpp jàmm rek. di leen ñaanal ñu ñëw si jàmm combat bu neex incha boo gisee combat bi noo ko gisee. ah dina neex de xam nga Balla moom saa yu jugee dafay neex te ngir ah. tamit day neexal làmb xam nga ah, ñu ñaan suba daal gis combat bu neex incha allah. mais ci jàmm. waaw maa ci jàmm baax. waaw jërëjëf jërëjëf. huitième combat de ndeysaan bébé kara ah Keita Kara moo ñëwoon ginnaaw fils de Sam Sam moom lañu jàkkaar lool moo nge mo eh Keita Kara jokkaas na léegi eh mbaa dóor mu daan du am Keita Kara fils Sam Sam ah ah fils de Kara Keita Kara Sam Sam songoon nañu fils Sam Sam Yeah. Ah. Fista Samsam. Dan na Keita Kara. Mu doon huitième combat de la. waa jëri ngoone Maalawbe Samba Koulibaly ci Sengi Ndaat moo nami moo frère Modou maa lay nuyu di nuyu presse bi di kontaan bu baax a baax tey mbégte laa am ndax dañ maa sargal ci li ma bëgg muy lamb ma ñëw àndan drapeau bi nag du sama drapeau drapeau Grand Dakar ñaari tali la ma andak wa Grand Dakar ñaari tali ñepp ñew gungema awma aw seen fay lepp jël naa ko delloo ko waa Grand Dakar ñaari tali. xalé yi Sénégal ñëpp ñu ñu bëri yëg ne yow lañ tuddé bis bi ñu ñew jitu la ci stade bi tok di la xaar lo wax ci jeunesse bi. wa am ci mbégte bu baaxa baax di nuyu jeunesse jeunesse bi parce que ñun ay xalé lañ ñun ak ñom ñoo bokk génération ñu bëgg ñu ci lepp lu ñu nekk ñu ci ak ñun amuñu seen fay ma ngi bëggee képp ku fi téw ndax sama jëmm ju ji. di bëggee waa grande Dakar encore une fois ñaari tali sama xarit yi sama mag yi sama frère yi Ismaïla Mbaye di sama magu bopp di sama magum géwal moom it ñu boole ko ci drapeau bi mu ne ma damay bàyyi lépp teg ko ci sa loxo ñëw sa kër ñu àndandoo dem ndax c'est la famille ma kontaan ci lool macha allah. Mm. Cheikhou Amar ñaari ñaari mbër yi songoo nañu Pape Diouf moo ñëwoon ginnaaw Boy Lo moom la ñu jàkkaar lool Pape Diouf moo ñëwoon ginnaaw Boy Lo am na léegi ñaari avertissement ndeysaan ci daw génn saaku yi Pape Diouf Lo combat spécial bi du dara du dara bëre nañu dix ou quinze minutes Cheikh Oumar ñaari mbër yi bëre nañu 15 minutes noppalu 5 minutes arbitre ngi ñoom li bañ ak li nangu nee na leen bëre leen ndeysaan noon di wax ay siisam nee nañ ko pare na Pape Diouf ak Boy Lo dox nañu wuti saaku ya Pape Diouf ak Boylo Pape Diouf Boylo Pape Diouf mooy ba soggoo nañu ah Pape Diouf cok ay Pape Diouf door na Boylo Pape Diouf Boylo Pape Diouf Boylo bi ngay dugg baaxul yooru bi du baax Boylo ni nga yooroo baaxul Boylo Pape Diouf ndeysaan taalibe Cheikh Moustapha Mboup maa koy nuyu ndeysaan songoon nañu booy loo Pape Diouf songoon nañu Pape moo ñëwoon ginnaaw booy loo la ñu jàkkaar lool ndax tey jël dina am daye am booy loo ko booy loo daan na laa ilaha illallah ah te jam la kat mama maa ngi nii maa ngi lay ziar di la nuyu di nuyu sama xarit Cheikh Omar waaw comme ni nga ko waxee la 14 ñu ngi woo amateur yëpp ñëpp ñëw ñu feet dund lamb ju neex bu yàlla dogalee parce que ñooy tëj saison bi ci combat bu toll noonu diggante a soog ak Fils de Balla ñu tuddee ko sunu sëriñ sunu xarit sëñ Cissé mu sëñ Babacar ñu jël kewel ak jokkel daf ko drapeau Sidi Diop Boy Sil ah Sidi Diop sama doom sa doom Boy Sil ak euh, Moussa Dioum 2 mom tamit ñu tuddee ko Assane Fall global textile suñu xarit suñu doomu nday def ci combat yo xamné 20 combat yo xamné bu ci nek rek man na grand combat lool nak soko ko liko waral moy ku yokul ya wa goro goro sok fista ball bi yomboon na wala yomb wa combat bo xam ne demande sociale askan bi ñoko don laaj même bu yombul sax dañ ci wara motax ma lay laaj dañ ci wara xar suñu tank tubey waaye nañ ci félicité ñaar ci côté goro sok ak côté fils de Balla côté Gora Sock dañuy féliciter sunu papa père ba ndax jàpp na ci bu baax pour combat bi yomb côté fils de tamit Abdou Aziz Ndiaye jàpp na ci baax pour combat bi yomb ñu waroon a bëree depuis mois de mars yàlla def Gora Sock amoon blessure xañ na fii la ko sunu borom bëggee waaw ñu jàpp ko la 14 août war si tëj sunu journée sunu saison muy cinquième journée jam production ren waaw du ñaan réew mi yëpp ñaanal ñu rek ñu dugg seeg bisimilahi rahmaani rahim génn seeg alhamdulilahi rabbil la 14 soriwul amateur yëpp ñu ngi leen yoo billet yi yomb na 2000 francs amateur 4000 loos 10 000 tooñu ñu kenn. tooñoo kenn. waaw ndax ku. combat bu toll noonu nga def ko loolu. combat bu toll noonu ku ko def pour xam nga rek feet la dañuy woon Sénégal ndaw ñi jigéen ñi. yow daal da nga naan damay tëj saison bi kon naa jàppale amateur yi ñëpp ñëw. amateur yi ñëpp seen bopp ñi xam ne ñu ngi ci diaspora bi nag bu ñu ko bëggee seetaan seen affiche lañ koy seetaanee. waaw seen avis comme fu waay mën a nekk ci àdduna rek bëgg a suivre combat bi di ko mën a seetaanee foofu di la nuyu. ci seen affiche point com. waaw seen affiche point com di la nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di sàkku si ñëpp ñaan nag nañ ñu ñaanal xam nga comme ci nawet lañ nekk gis nañ taay ndox mi mooy xaw a. yàlla dina def jàmm. waaw yàlla def si jàmm bañ bëree si bisimilahi rahmaani rahim mu jeex si alhamdulilahi rabil alamin Não, não, não, não,

sifflé na Jacob Baldé Papa ji Djiné Jacob Baldé ah Jacob lu muy wax Jacob Jacob Baldé Papa Boy Djiné Papa Boy Djiné moo ñëwoon ginnaaw Jacob Baldé moom la ñu jàkkaar lool vingt et une heures l'arbitre le combat de Papa Boy Djiné jokkaas mais papa il faut faire doucement papa il faut faire doucement la ilaha illallah arbitre arbitre Papa Boy Jacob Jacob Balde... la ilaha illallah a pas Papa Boy Djiné n'y a ngi di poole ñaari mbër yaa ngi ni teg kurpeñ dalagul cong amagul Papa Boy Djiné Jacob Baldé laa ilaha illallah Jil Baldé te tibb léegi pop tànku Papa Boy Djiné ni làmb jeex na laa ilaha illallah Papa Boy Djiné Jacob Baldé Papa Boy Djiné dagg na léewtoo bi Jacob Boy Jacob Baldé Papa Boy Djiné Pikine Guédiawaye la e songo nañu aye Boy Djiné ah booy jinne duggoon na xam naa dugg bi dafa dafa baaxul mu génnaat waaw waaw noonu gën Jacob Balde papa booy jinne Jacob Balde papa dagaat na léew Jacob Balde papa booy jinne ndeysaan muy journée sans production di drapeau Karba Mbaye Jacob door na Jacob door na Papa Fayu Jacob door na oh là là Jacob Baldé Papa songo nañu ñaari mbër yi songo Papa Boy Djiné Jacob ñaari Sako ba ngi door ci suuf ngi door ci suuf Papa Boy Djiné Sako eh lan mooy am waay Papa Boy Djiné Sako Papa Djiné ñoom ñooñ ci wax lu leer Jacob Baldé blessure la am ci loxo bi Mingi ngi ñuy faj mais buñ ko fajee. combat bi dina am. lolu pas continuer décision bobu nak médecin bi mom mokoy jël. waaw pas la bu ko fajee ba paré yàgg na ni loxo buñ band mom dama gis ne yag na ci médecin bi. awma ma ni dina ci n'y a non non non non non. parce que traite bi day mel day gën a waaw day gën a gën a gën ñoom ñaan jëpp tey bëri nañ wane nañ fulla ak fayda non wane nañ jom fulla ak fayda wane nañ ko moom waaw wane na ko ok boo xam ne peut-être ci carrière am uh-huh. ma ko gis ok man mii musuma ko gis si moom parce ci prise bu woor lay capté voilà ci jàpp te bu jàppee du yàkkamte li muy def te bu jàppee dina xalaat li muy def merci beaucoup tey loolu am na si yëpp ko yëpp goo ne macha gis nañ lecture de moom gis nañ changement bu laajte mu dayee koy génne ñu ngi koy génne stade bi lamb ji mbaa du lamb yi dafa am règlement waaw lamb dafa am règlement lamb dafa am règlement neex def buñ ko génnee lamb ji yàqu mais buur làmb dafa am règlement ah. salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sëtut maram jiin